ne ñaari nit bu dendee kii di fonk bisam lii dafa bëri. waaw Baye Mbary loo def fii. nit a ngi ci wana wi. fëgg nga ko. fëgg naa mënuma xuuxu. mënatuma xaar. fanweeri minute ma simili maa ngi ko toog fii. li man moom mënatuma xaar. man fi sama biir baa ngi naan gur gur gur gur. yow nga xam. déet waaye sa soxla si lim ñu togg a dégg laaxum laaxum ngurbaan la wala laaxum bapat. man xam nga unk daa saw ci laax ba xaw ma ndax man mi sama biir bi noonu day wëlax ndiku day mel ni ci mbaama ci ne di ma kuccal. ni toppal rang nii rek

mun na possible du nga som nga jiitu ñu nga jiitu xabal xabal xabal waaw Baye gee Baye Mbari damay xëy yow damaa bëgg a def aajatu liñ li ma naqari ci bi yëpp ci bundux yow laa koy fay ngay waaw lu la naqari Baye Mbari gaawal waay sama dara ngi génn de bundux dara rek bundux yaa ma toppe mbooro toppe ma la mbooro xaw ma sookoon nga ma toppe xaw ma mbooro duus bi yaa ciy jiitu som bi yaa koy lekk maxal nga yow doo reg baal gone doo tukki doo yaa bon. man bi laa bon moom waaw waaw waaw waaw damaa def loolu dama lay dee. Mm. wàññil puub. waaw bàyyi naa ko. wàññil puub bu ndox. waaw waaw dinaa ko bàyyi. li puub nii na puub sa sëbëri mi. waaw ko bàyyi sa puub de. waaw wàññil puub bu dugal dugal gauche droite talonné. la ilaha illallah bay bay. daawal yow it. gauche daa am poids waay. oh la

lu doon. man maa jóge douche bi dikkaat génn bàyyi na ko mag bàyyi mbaa jàpp ma di ma dóor defu ma leen dara. baax noppil noppil xamal tax man la noppil euh, sëñ Touba daf noo dénk ci xasaayit gu mag ga ñuy wax matlabul shifaay ni wàccal saxiiranaa yu waaxirul kabir wàccal kabiranaa yu xiinul saxiir mu ni ndaw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 ne ñaari nit bu ñu dendee kii di fonk bi bisam bii dana raw kee ko fonkul raas bu gaaw baa ngi tane am ci duniyaa ji ci xeeti payin ëllëg di lay raw bu leen koy ñéeblu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaa